abonné leen partagé leen Taha TV mooy sunu télé soo abonné yow di nga xam leeri maam dog waa kër. soxna Fat Cissé mi ngi wax ne mi ngi bëggee soxna Fat Cissé bu baax a baax di wax ne ba mu ànd moom ba léegi bàyyiwul yal na yàlla yàggal seen ànd yal na yàlla yàggal seen ànd te dëgëral seen taxawaay moom ak maman Paye. maa fay moom ku jàmbaar la des fois moo wéyteeg Petit Diop kon ko ndeysaan man de seen ànd ak ma maa fay sax daf may jaaxal ndax nu mu jàmbaare rek waaye yal na ko yàlla yi sàmm moom it ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ngi jégalu bu baax a baax ci guddal yi waaye oustaz Mouhamed Ndiaye ñu ngi lay xamal ni ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax ñu ngi lay bëggee bu baax a baax a baax yal na yàlla sàmm la yal na yàlla sàmm la ci barke alquran salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi jégalu lu baax yàlla daa dogal ni di sama sëriñ Samb Gise doon wax naan lu tax fu am rek boo ko mënee moytu moytu ko moo tax ñu yëg way wala yàlla daa dogal ni guddi na ba noppi te ñun ñun ñuy waa Kër Massar ñoo moom Kër Massar man ak Badara ak Mbas ñi. ñu fii lañu dëkk guddi guddi fii ñu ñibbi tabarakallahu ñoom Pape Gueye ñoom Aziz Ndiaye ñëpp ñoom Mouhamed Ndiaye doon di fii la ne war na ñibbi bu sori tabarakallahu ñu ngi jégalu kàddu ñu yëkkati seen kanam tabarakallahu bu xam naa ni damay woy sept minutes incha allahu taala bu matee rek mara nga def ma si ndaxte lu tax rek lu ñuy bañ waaye normalement Badara mais moo waroon woy ma toog si ginnaawam di ko awoon ndax sama sëriñ la tabaarakallaahu di nuyu Haji Abdou Aziz Ndiaye tabaarakallaahu di féddali suñu cofeel ci moom te xam naa ni Mouhamed Ndiaye wax naa ko bés ne ko Mouhamed man Abdou Aziz dama kaa sopp ba mu indi ma si yow fekk mu tombé nag programme ñoom gune suñ Babacar bi tabaarakallaahu mu présenté ma la tabaarakallaahu yal na yàlla sàmm ñun nag duñ sopp nit ci lenn lu dul yarab teggin tabaarakallaahu xorma macha allah yan yàlla defar ko ko noonu laay koy waxee ci Pape Gueye xam naa ni xamuma waaye man damay gis ay vidéo yu bëri ci mutahabbi mutahabbina fillahi TV dama koy seetaan lu bëri ndax yar beeg teggin beeg xorma bi yàlla yàlla sàmm ko defee jàng fatiha salaatul fatihi ñu xëj jaay kan di sallallahu alayhi wa sallam bismillah to yàlla barke ci waa de asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di leen ziar di jégalu bu baax a baax baax xam naa ni kàddu yi du bari dañuy daal di jël nuyoo bi rek te ko ci loxo oustaz Mouhamed Ndiaye mu jàllale ñoom Aziz ak ñëpp allah ñu barkeelu tuuti करे ईंदसि तव्हां बि दादा ba muy dëgër ba ay atam di man fukk ñaar ba xalaat di ñor la giltu baay ba am fekkoon xalil daani sëroon rey taawu boppam fàtte woon ku diir bu yàgg yàlla naay ku maa ngi fàttali yi mbiram yàlla naan ko jël ci sa ñaareel ba juróom-ñeenti at te bul fàtte ni Ismaayil yaa waxoon di ko jaamooma boo demee nan def xalilu xëy woo aajara naan ko solol damay tukkeeg moom bañ mu ne daan fa rayam iblisa ba jobi moo bon dafa foo ne mën na jax jaxal keroo xolum ndeyam bañan ki am ndax dafa dem fa ajara nan ko yëgal yow ajara xaliyu me nar ndara lu lay sa doom jeecin ba fam ajara naan ko yow de waay yéem la foo ma gis baay am benn taaw xëy di ko rey wax ma leneen ci ay mbiram seytaane naan rey ko waral mu yóbbu paakam bi gisal yàlla fel laamin wa mu ne xalilu mee daa am ndigal bur yàlla rant ko reyam waaye déggal aajara lam ko tontu ajara naan kon war na ko yàlla ko moom say bind ko bu ne mu rey ko sañ na ko na daal di dee ay ndigalam mu ne wëndëng fa xaajara mer lool di pipp xaajara lu pexe mi sooy fa xaajara ndax mun la yàq pas mu ne comme que nday ji tënn ma naa daw dabi baay bi jaar ko ci sentiment seytaane daw dabi xale yi naan ko sa doom ji di xale nim la duroo loo ko naral xanaa du la yi maa ko yërëm jëm na ba naagu mu ne na xamal doom ji xam li bay bi nar ci ay pexeem ndax mu ragal lànku reyam ba mu ñëwee xamal ko ko Ismaila naan ko war ko yàlla ko xëy bind ko bu ne mu rëy ko sañ na ko ne ndeysaan mu ne ndeysaan baay bi tënna ma doom ji bëgg maa tëdd fi amee ismailay fol xeeri o ndaw di ko ko sànni moo di daw ñetti seytaane faf naa lu doy ne xaliilu kontine minam soo ko xamal la mu naroon doom sa manta xatay bay topp naa ay ndigalam xaliilu naan yow sama doom maa ngi lay yëgal ni sa borom moom ma yëgal ci gént doom nee naa la rey fii ngir jëmam seetal ci loolu xalaat mu naan ko bàyyi oo may xalaat ci bàyyi bu yàlla jox xalaat may loo ko doon ji ngir jëmmam yaa bu nayu inni ara fil manaani ani yol baada fanzur maada fara qaal yaa abati if'al maa tuhmar satajiduni insha allahu min as-saabiriin seetal ci loolu say xalaat mu naan ko bàyyi oo may xalaat waaye bu yàlla jox xalaat lay loo ko doom ngir jëmmam mu naan ko bàyyi xalaat laa ci am gis naa ne buñ dee rend gàtt dafa wéqu ba sedd bàyyi boo tëkkul samay loxo yeew samay tànk mën na maa wékk la gaañ la te mag nga waxal samay moroom buñ ma teel la jaale sama yaay nañu bàyyi mu mis ma kon ko boobu foto amul Ismaïl sumi mbubam jox ko baayam te naan ko bàyyi loolu ne ko na moonte bañ a jooy yoolam di yàq ne ko bàyyi yàlla ma rey nga jëmam xalilu tër ko yee yow ay dagoon te kii bëtam jooja baay ci jooja doom ci jooja yaay am na mbirum xalil booba kam bu baax ci baatu doom bi boobu baax baat bi daggul muy boobu xëx daggul mu jaax la ci mbiram xalifata sufi wala muxtaariya fi di bawaaw fi yaay fa jaayal di ne ay daanam te ñu wala xalifata soppe borom saytu ne kese ne sax ne lamb sax ba ñu koy wax te xool ñu xool ñu bëri ci galam deesu la ko ci galam deesu la ko ci galam deesu la ko ci àddunay waru daal la tamit ne sax du la jàpp àddunay waru daal la tamit ne sax du la jàpp àddunay waru daal la tamit ne sax du la jàpp naaj bu tàng lay wër daal sa ko bu ne ko te tàng ma nga ca bari galam deesu la ko ci galam deesu la ko ci galam deesu la ko Thank you, fam. Been on now.

ñi toog suñuy kilifa lañ waruñu woon am kàddu yi ñu yëkkati seen kanam waaye dafa nekk ni mbir moom boo nekkee ku doye ñu jël mbir sas la ko te mënoo bañ danga koy sasoo rek ñu ngi leen di jégal waat bu baax a baax a baax ñu ngi jégal bu baax bu ko defee rek ñu jox gaa yi ñu continuer seen programme incha allah jërëjëf Alioune Badara ñu lay ziar bu baax ñu ñi xamal ne membre ñoom ñew na l'ambassadeur Hadji Sambou di ko ñaan moom yalla na ko yàlla defal jàmm haji Mamour ñu lay nuyu bu baax di la ziarra di wax na leg nak fi mu toll nii moom wax di mëna to yagg xana di jox. te ko partageel te na nga seetaan